ça c'est Mouhamadou Mbodj. Mhm. ah yàlla na ko yàlla yërëm. il m'a beaucoup formé il a beaucoup participé à ma formation. Mhm. def naa moom cinq ans. Mhm. nit ku dëggu la woon bari na valeur yu bëri yu ma jëlee ci moom. yàlla na ko yàlla yërëm moom bokk na ci ñi créé ARMP. ci euh, bokk na ci ñi liggéey ak ñun ci loi sur la déclaration de patrimoine. même OFNAC bi. bokk nañ si ñu ko liggéey moom mu jiite woon ko. Euh, proposé ko Macky Sall. bari na lu ñu liggéey ci Sénégal. ñu àndoon tax moom moom Birahim euh, man vraiment ci côté gouvernance liggéey nañ ci loo xam ne Sénégal amul fayam. c'est une reconnaissance. l'autre photo. ah kii mooy ambassadeur u États-Unis mhm. bi fi jógee keneen moo ko remplacé léegi. Ah. mooy moo fi nekkoon ba fan yi passé. Mhm. mooy Moussa Ly ah, noonu la tudd. waaw moom tamit mu nekkoon ku. ku ubbeeku. Mhm. léegi si situation bi bu ñuy def élection moom day ñëw xool ni ñuy superviser élection yi. Mhm. lii si benn hôtel la dañ fay def suñu carte général mhm. ñu tuddee ko situation room électorale. alors comme euh, euh, kii USAID en général mooy financer programme boobu ambassadeur bi day ñëw xool euh, situation room boobu ndax. Euh, mu ngi dox moom mooy relevé dysfonctionnement yi ñoom Babacar Gueye fay nekk ñoom Majid Ndiaye Majid Ndiaye mu ngi tawat fu mu toll nii yàlla yàlla wéral ko amiin France yàlla na ko yàlla wéral euh, Alioune Tine ñoom ñëpp ay doyen la yoo xam ne dañuy ñëw ci situation ñoom bi ñoom Safetou Diop bu si civil jigéen di saytu mm. bépp rëq-rëq bu am ci élection yi ci jour ba mm. ñu fexe nuñ koy jubbante balaa muy indi lorange mm-hmm. beneen photo sa <laughs> moom c'est les rencontres en général bu ñuy bu ñuy def médiation avec euh, le président Macky Sall wal joojo moo nekk nii. Mhm. sama wet mhm. man. professeur Babacar Gueye moo nekk na la. ah waaw avec le ah. même style ah. <laughs> rencontre ak président Macky Sall day métti trop nag. Mhm. en général parce que début bi day saf. président moom yenn saa yi mu tàngal quoi. <laughs> parce que surtout ñun on traite en général bu ñu koy gis rek c'est toujours pour traiter des questions. ñu saf quoi parfois problème Karim parfois problème troisième mandat. Euh, ah wax ngeen ci troisième mandat. waaw lépp la ñuy wax am. mu wax. alors que presque génn na ko ñu recevoir ba pare tontu ñu. Mm-hmm. alors euh, donc euh, <laughs> mais après. day après fin bi day day day bàyyi day. day relaxé day relaxé wu waxtaan ree mais ñun saa yu jógee pour gis président Macky Sall problème am na ci réew mi. Mm-hmm. te bu boobaa dañuy koy teg sur la Mhm. courage bu bëri lay laaj parce que euh, xam nga un président la du tàmm contradiction ay conseil dañ koy déglu nii du mais ñun bu ñu demee comme te ñun xaaruñu nomination ñu mu jox ñu paas ñu dara euh, bu ñu jógee ne objectif yi moo ñu yóbbu euh, en général man ñun la ñuy def porte parole en général donc parfois président ñàngal ma tuuti mais dara du tere moo wax li ma li ma tax a jug. Mhm. bu ñuy tàggatoo tàggatoo ci kafre et eh, parce que loolu mooy dëgg. c'est ça bii lu leen taxoon a jóg. bii est-ce que du woon problème mu mars bi parce que. non mars bi fekk na jon jegeetul nii de. mais jon bi mu fa bi mu fa jógee dafa continuer woon di bon bu dul mars bi di problème mu est-ce que du bon je vraiment j'ai oublié est-ce que du woon ci parrainage bi. voilà parrainage bi la. wala dialogue bi parce que Doudou Sarr Niamé bi ngeen jógee fii ci suba ga yaakaar naa woo nañ ko. oui je sais je me bi la yaakaar naa. waaw mais je me souviens plus mais bon. en tout cas c' est toujours pour Babacar Fall bu Gradec moo nekk Mbélé c' est côté Mbélé. Euh, donc c' est toujours vraiment pour parler des choses mu suñu dem gis président Macky Sall wax ko mhm. sama soxla. man mhm. ma suñu Macky Sall mosul sama sama soxla. mosul yëkkati ñaar dërëm jox ma. ñii ñi fa toogoon ñëpp ñii ñëpp gisuma kenn ku fa mus a dem ba wax ko sa soxla. moo tax bu leen jàkkaarloo moom wax ko dëgg. moo tax bu ñu jàkkaarloo mu nekk à l'aise mm. et puis et puis ñu ko aussi bu ñu koy wax parfois xam nga président ak contradiction du ko tàmm euh, mais terewul dinañu déglu. Mm. et yu si bëri dina dina dinañu topp. mars bi mu dëkk bi tàngee dëgg <laughs> am na yu bëri lu ñu ci saafara. macha allah li nga xam duñ ko wax. Mm. macha boobu moo leen woon wala yéen a woote woon dem. boobu professeur Babacar Gueye man Magid. ñoo gis ni sa président Moustapha Niass ne ko il faut président teggi tànkam mhm, mhm. mun nañu bon ñoo leen ñu waxtaanee ko ñu dem waxtaanee ak président Niass ñu jox ko sept points mm. ne ko président ñu bëgg mu def loolu ñu dem programme moom sept points yooyu ñu jox ko cinq point yëpp mu rek li foto bi président Niass la mhm. avec kay ambassadeur États-Unis la woon bu fi nekkoon euh, c'était dans le cadre de di programme sunu budget bi ñu koy lancé daal la dernière kii moo doon directrice USAID kii ambassadeur bu ci nekkoon la avant mu si. yaa nekk nii yow lay téye loxo bi. sa xamee waaw day soog ñëw ñu kii ko. donc euh, <laughs> photo bi. ah photo bi nag moom yàggul. Mhm. lii mooy bi mu defee arena ba pare. Mhm. ba muy remercier partenaire bi mu defee arena ba pare di euh, yëgal ma ko. ma ñëw mu jox ma mm, trophée bi wane ne. donc may remercier ci sama taxawaay. bi mu koy def Babacar ñëw. fekkee Babacar moom sama xarit la aussi. sa taxawaay en tant que lan. daf ma waxoon ma jàppale ko ci bés bi. parce que bi mu def arena bi bëggoon na ñu ñu jàpp ci. Mhm. parce que c' était la première fois. ah ONG 3D. non pas man pas ONG 3D Moundiaye Cissé ça ah, euh, sama rapport ah, ak Youssou Ndour c' pas des rapports avec ONG 3D. fii man man ak moom. man ak Babacar. Mhm. Euh, sama mag la war na mën a am bés ne bëgg naa nga jàpp ci. waaw ah même même sax ba ñu demee concert Tëngéej ba. ci stade Tëngéej ba yaa ngi fa woon. maa ngi fa ah am waaw. donc muy ku baax Youssouf. c'est pas l'ONG 3 mais a précisé. que boobu il fallait aussi Rufisquois yi ñu mhm. participer ci. doot mhm. ay billets may ko ay Rufisquois ñu dem ci arena bi. yooyu la contribution yooyu la quoi mu jàpp ci muy ku baax Youssou bi cocktail lañu lañu organisé woon pour remercier un peu les partenaires mm-hmm. voilà dafa doon def cocktail pour remercier les partenaires mm-hmm. il y avait pas c'était personnellement que j'étais là-bas j'étais même avec euh, ma famille oui c'est ça ma famille mon épouse et mes enfants mm-hmm. mu nekkoon cocktail bu neex et la reconnaissance elle est très importante mooy photo bu mujj bi la la régie voilà moom moo nekkoon photo bu mujj bi donc euh, <laughs> on a terminé donc en en mais par contre euh, dafa am ay questions yu bëri ñu ñëw ñu ne yow Facebook rek nga nekk nekkoo Twitter donc ça veut dire que réseaux sociaux yi doo ko topp trop Ndiaye. waaw ayuma ci xamaguma luy Twitter mais suba.